parce que nekk na événement boo xamante ne je pense que les mélomanes dinañ ko dund bu baax a baax euh, comme lu ñu doon wax sànq rek mbaaya ñi ngi recevoir nag ci plateau bi gan boo xamante ne dafa am solo ñuy waxtaane nag lenn loo xamante ne c'est très important parce que dañu toll foofu réew mi moo ni mel ndax gis nañ ñu bare ñoo xamante ne tey ñi ngi dem ci mbënn bi di jël li nga xamante ne moom moo di gaali parce que jàpp nañ ni peut-être que dëkk bi amul liggéey jàpp nañ ni peut-être ñoom seen seen bopp ci li nga xamante ne moom moo di réew tax na am na ay nit xamante ne dañ ci xalaat fas yéene ci wax waxtaane donc moom la ñu war a dalal tuuti ma bàyyi la rek nga nuyoo sànn ci sa kàddu ñu soog ko dalal ci plateau bi. ñu ngi lay nuyu. <coughs> di la di la di la ziar. Mm-hmm. di la tatagal. Mm-hmm. di la yéegal ci sa yéeguwaay. macha allah ñu war a développer ci li nga xamante ne mooy mooy mooy tax réew mi avancé. Mm-hmm. ndax euh, tey jii ndaw yu ci bari dañu réer. te loolu euh, warul ndaw ci réew. il faut que ñu gindi leen euh, waaye. ay xale yu am jom. Mm-hmm. ñoo ne Sénégal xale yu am ambition ñoo nekk Séné fii ci Sénégal. Mm-hmm. ñu ñu ñu laaj la rek lan ngay lan nga leen di dolli. Mm-hmm. pour ñu gën a xam ne Sénégal euh, am na liggéey Sénégal. am na ñoo xamante ne tey jii ñi ngi ay ñi ngi ay société yoo xam ne. war nañ leen a mën a jël. ñu daan ci seen doole pour mën a euh, yor seen réew ëllëg wala pour mën a yor seen i njaboot yor seeni bopp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi alors loolu nag moom la ñu nar a waxtaanee ki ñuy dalal rek tout de ci plateau bi moom moo di monsieur Gaye Pape Momar moom nag moom mooy secretaire général u RENES RENES nag boo leen ko déggee mbokk téléspectateurs y moom moo di le réseau national des entrepreneurs du Sénégal dalal ak jàmm monsieur Gaye ji jërëjëf Mado mhm. euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi euh, nuyu ñi seetaan TFM ñëpp. di mm-hmm. nuyu mbokk Sénégal yëpp. ak mbokk diaspora bi. Mm-hmm. Euh, di sant yàlla ci invitation bi. Mm-hmm. ndax euh, occasion la bu ngeen ñu may. pour ñu mën a waxtaan ak sénégalais yi. ci jafe-jafe yoo xam ni ñu ngi koy dund. rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunesse bi. Euh, ma profité ci opportunité bi aussi nuyu la président du NENES mhm. muy Mamadou Thiam ak euh, tous les membres du bureau mhm. ak ñi nga xam ne ñëpp bokk nañ ci réseau bi mhm. di la nuyu également yow tamit Mbaye ñu ngi lay déglu li ngay wax neex na am na solo euh, vraiment tey dañu bëggoon a ñëw waxtaan ak askan wi ci événement boo xam ne moom lañ fas yéene organiser suba incha allah fële ci grand théâtre ñu jël thème bi nga xam ne dafa mhm. nekk thème bu actuel muy l' entrepreneuriat mhm. face à la problématique de l' émigration clandestine mhm. euh, dañu jàpp ne entrepreneuriat buntu la bi nga xam ne tey buñ ko jaaralee fi ñu ko war a jaarale amaana ndaw yi dinañ gis yoon boo xam ne ñoom tamit dinañu bëgg a soxla toog ci réew mi mhm. ndax li ñuy bëgg di ko wuti mhm. war nañ ko fee mën a am war nañ ko fee mën a am ci réew mi mhm. donc balaa nag ñuy xuus ci waxtaan bi tuuti dama la naroon tooñ nag balaa ngay dem sax ci waxtaan bi laaj la rek monsieur Guèye yow d'habitude boo xëyee suba teel yow lan ngay ndékkee yaa ngi ci araw yi laax yeeg fonday wala léeg-léeg di nga laal tuuti panton <laughs> Euh, waaw man nag comme euh, damaa xaw a nekk tuuti kaw-kaw <laughs> jógee Tiwaawan ndeysaan ci ginnaaw est euh, loolu moo tax loolu dafa def benn instinct conservateur ci ñun ñaar yi moom lu ma sopp di ndekkee la benn bi mooy fonde boo xam ne dañ ciy def lingom wala daqaar su ma ko bëggee varier may faral di utiliser trop mburu ak thon ndax thon boo gisee ñu ñu ñu ñu ñu ko taamu ko mhm. docteur yi dañ ci wax lu am solo. xam nga léegi feebar yi dafa bari. te ton jën lañ ko defaree. Mm-hmm. te jën wax nañ ni dafa am cholestérol boo xam ni. Mm-hmm. dafa baax ci doomu aadama. moo tax di tàmm di ko ndékkee. Mm-hmm. yaakaar naa ne loolu. il faut que ñu ciy def ay sensibilisation. pour que nit ñi. di xool li nga xam ne dafa am jeexital ci ñoom. ci seen dund ci seen wér-gu-yaram. ñu di ko tàmm di ko utiliser. boo gisee mag ñi njëkk ñi bu bu yàgg ba ñu wéroon. ñoom li ñu doon dundee lépp garab la. garab la. man moo tax ma taamu ko di ko ndékkee te li ma ci gën a neex nag waaw mooy dama ko doon wax souvent soxna yi ne ton warul wéet dëgg la il faut nga def ci soble bu ñu xaw a laxal nga xam boo koy yëy da nga koy da nga da nga daj mais li ma ci gën a neex mooy yi nga ci boole mooy crevettes yeeg ñoom seen kon yaakaar naa mburu mi nga xam ne moom mooy ànd ak ton bi dina nekk mburu moo xam ne mburu mu xumb lay doon ah. loolu dafa am solo ci dëgg la dëgg la yéen géyeen yi bëgg naa ngeen wax ma nag duggee ma ne ma nen jaww maa koy simmi hmm. wala c'est kenn mais macha allah en tout cas c'est comme on dit on mêle l'utile kon nag moom buy dem ñu defal ko pain bu baax di jox ko waaye comme li mu wax tamit am na solo di utiliser yi nga xamante ne moom moo fi nekk jën bi baax na leneen li nga xamante ne moom moo di ay fonde ak yooyu c'est très important je pense que mbaaya beneen yoon dinañ def fonde boo xamante ne indi nga fi bu am limam waaye bu daqaar bi tamit bëgg naa ko ñam donc ñu tuddee ko ko su boobaa indi woon xuy la ah ruy nga indi woon c'est c'est de ruy. ruy nga indi woon ruy non pas ruy monsieur Guèye. Euh, euh, tur bi dëgg ruy. ah monsieur waaw nu mu mm, ruy. ok merci merci c'est gentil ruy laa indi woon mais bu may indi fonde <laughs> moom lañ koy tuddee. moom lañ koy tuddee mais Dakar la wax ah. laa war indi. Mhm. des fois dooy laal caakiri. waaw soow mi nag moom laay bañ parce que soow dafay nelawloo. loo ko boolee ak cere bi mu diis gan. Euh, forme bi nga war a àndal ci journée bi dafay wàññeeku. moo tax lingom bi cere bi. Euh, fonde bi. ma ciy def lingom wala wala daxaar wala yu mel noonu nga xam dafa riche en vitamine C. bu ko defee daf lay daf lay may tonus bu ko defee boo mënoon def benn di nga def fukk ak ñaar. dégg li en tout cas macha allah. ak fonde moo la gënal. waaw moo ma gënal macha allah. en tout cas ñu koy jaajëfal bu baax gis ngeen ko rek nii lay demee c'est des sénégalais c'est des êtres humains comme tout le monde li ngeen di dund seen biir kër ñoom itam ñoom la ñuy dund seen biir kër ba tax na parfois il faut nga dindi li nga xamante ne moom moo di cette facette là de wala de kilifa ñu waxtaanee wax waxu nit et ça mooy loolu mais ginnaaw loolu quand dañuy bëgg waxtaanee déjà balaa ñuy egsi ci panel bi est-ce que mun nga présenter exactement RNS lan mooy RNS et puis lan moo leen tax a jóg waaw RNS dafa nekk ndaje mm-hmm. boo xam ne yàlla dogal na ci taxawaay ak yitte moom ci am la jóge mm-hmm. ñu dajale entrepreneur yu bari mm-hmm. euh, ñu xool ne jamono dafa toll foo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yëngatu il faut ñu daje boole seen doole pour xool nan la ñuy mën a defe ay yitte ba seen liggéey gën a ñoŋ mais tamit fexe ba ñi nga xam ne dañu toog amuñu liggéey ñu ubbil leen yoon wan leen ne fii nit mën na fee aw ba am lu mu def am lu mu yoree njabootam am lu muy faje ay soxlaam mhm. xool tamit que ne jeunesse bi. toll nañ ci ay jamono jaaxle nañu parce que ñu ci bëree bëri xamuñu fu ñuy jaar. Mhm. ñu ne leen bunt bunta ngi nii. Mhm. bu ngeen ci awee bu neexee yàlla di ngeen mën a am foo xam ne di ngeen ci mën a jàpp di ci liggéey te du ngeen soxla kenn. mais mu nekkaale aussi bunt boo xam ne dañ ciy woo kuréelu Sénégal gi yëpp. Mhm. muy état d' abord. ak ñi nga xam ne ñoom ñooy institut de financement yore xaalis. pour di leen woo pour ñu waxtaan ñun ñëpp. xool nan la ñuy mën a fexee ba secteur informel bi ñu dooleel ko mhm. tey foo dem ci àdduna bi mhm. secteur informel mhm. moom mooy fi nga xam ne mooy seen cëslaay pour seen développement ñu mën ko assurer effectivement mais seetlu nañ ne Sénégal secteur informel bi xaw na fi néew doole li ko waral mooy léeg euh, manque de financement bokk na ci léeg aussi manque jumtukaay. Mhm. ci wàllum xel ak wàllum xam-xam mhm. tamit. Mhm. dina nekk li nga xam ne dafay tënk entrepreneur yi. donc ñu ne dina baax. ñu daje. na ko sunu mbokk ma coon sekk waaye woon. diw booloo nañu ñële booloo nañu. mais ñun tamit ñu ne nañu booloo. jàppalante mu nekk benn force boo xam ne. dañ koy mutualiser. pour que entrepreneuriat. mën a nekk levier mën a nekk loo xam ne état dina ci mën a sukkandiku. parce que état tamit dañ koy dimbale. dëgg la munul def lépp leen fu ne ñi nga xam ne nag ñoo jàpp ne ñoom tey jii économie bi ci seen kaw la tegu mhm. ñoom ñooy dajaloo pour xool nag nan la ñuy mën a ànd ak état ci suñu expérience. Mhm, mhm. ak ci xarañte gi nga xam ne yàlla may nañu ko ndax loo xam ne mhm. liggéey nga ko pendant quarante ans wala lu ko ëpp. tey boo ci woowee nguur gi. ne ko lii jàpp nañ ne ay bunt la yoo xam ne bu ngeen ko ubbee. économie bi dina mën a gën a ñoŋ. effectivement eh, li ñuy woowee secteur informel sax ñun dañ ko xaw a contre. effectivement parce que koo gis fii muy dem daanaka organiser wu na. effectivement mais li nga xam ne ñun moom lañ préféré mooy économie populaire. mooy li nga xam ne li ëpp ci doomu aadama yi. wala li ëpp ci sénégalais yi. loolu la ñuy yëngu. Mhm. mais lii seen problème. Mhm. mooy ñàkk jàppale. effectivement tey boo jëlee exemple mbaaye mi taxaw. Mhm. li ma dégg mu koy def. waaw tey bu doon yeneen réew yu mag yi. institution moo koy seetaan ne ko yow mbaaye euh, lii ngay def nii buñ la jàppalee dëggantaan di nga mën a nekk entrepreneur bu mag boo xam ne di nga mën a jël ay junni junni xale loolu mooy source pour mën a insérer ndaw yi. il faudrait ñu créer ay champion képp koo xam ne gis nañ ne am nga xarañte yaa ngi yëngatu ci dara. ñu mhm. fexe accompagner la. par rapport à ça je voulais juste pëtëxal sax laa laajaale leen yéen par rapport ak ak euh, RNES est-ce que yéen ci xayma am na ñenn ñoo xamante ne jàppale ngeen quelque chose de palpable ñoo xamante ne vraiment nee nañ bu ñuy duggee ci yéen gis nañ ci seen bopp dem nañ fii tollu woon nañ ci beneen level. waaw ñun daanaka dañuy doog a judd. ok d'accord parce que c'est au mois de février la ñu def suñu lancement. donc mun naa ne amaguñu un en amagu mais ci diggante bi. Mhm. ñu ngi fi def ay activité di programme ay formations. effectivement di programmer aussi ay ndaje. Mhm. comme bi nga xam ne moom la ñu programmer de euh, suba. inchallah pour que li ñuy wax il faut nga xalaat d'abord. Mhm. c'est la réflexion. qui précède l'action. effectivement am na yoo xam ne il faut ñu xalaat ko il faut ñu xalaatandoo ko. il faut ñu waxtaane ko. pour que yoon wi. buñ ci tegoo rek. mu hmm. nekk loo xam ne day yomb. incha allah alors yaa ngi naan yéen di di mal benn panel incha allah suba bu ma juumalee ce sera au Grand Théâtre euh, mu nekk ay thèmes yoo xamante ne war nañ ko fa waxtaanee tey ci thèmes yi yenn exactement ngeen xalaat ni foofu dinañ ko fa yëkkati. waaw thème général bi moom laa wax léegi. Mhm. mooy l'entrepreneuriat face à la problématique de l'immigration clandestine mhm, mhm. ci biir loolu dafa am ñeenti sous-thème. benn sous bi ci jiitu. mooy wàllum formation. tey ci formation bi lan nga ci mën waaw formation ñun dafa am beneen approche buñ ci am. c'est vrai école de formation yi bari na institut de formation yi bari na. mais ñun ci expérience bi ñu yàlla jox. am na beneen approche boo xam ne moom lañ ci am. parce que tey da ngay njàngam mhm. bëtul lool dëgg la CM2 la yam. ndeysaan mais kooku amul école boo xam ne tey mën na faa dem. non. Mhm. pour ñu dugal ko dañ koy wax ne ko amoo benn diplôme amoo benn qualification xale yooyu nag tey. ñi ci ëpp ñoom ñooy dem ëllëg ci mbë mbënd ci ci mbëkk mi. donc ñun ñu jàpp ne am na beneen approche bu bees. Mhm. boo xam ne bu ñu ko indee. formation bi dina gën a mën a yaatu. parce que mhm. balaa ngay mën a def dara. même entrepreneuriat bi même njaay. y a le minimum. loolu ñun li ñu ci gis. mooy li ñuy woowee. la la formation au métier de la ville. ay métiers yu ndaw ndawaan yoo xam ne nit ki mën na koo am. Mhm. bis bu ko amee tamit dina am activité bu muy bëgg a def. loolu moo tax bi ñu jëlee thème formation. Mhm. ñu pare jël te mu insertion. voilà parce que nit ki boo ko formé ba pare. il faut mu am fu mu dugg effectivement donc loolu aussi problème la fii Sénégal. Mhm. di nga am xam-xam xale yi am ay master. ñu ngi fi duñu jeex. mais xamuñu fu ñuy fu ñuy fu ñuy dem. xale yi am ay formation mhm. nekk ay BTS. Oh. am diplôme yoo mën a xalaat ni lii am na fi. mais gisuñu fan la ñuy mën a jaar. donc il faut que ñu toog waxtaan. pour xool naka la ñuy mën a fexee ñooñu boo leen formé ba pare ñu insérer dëgg boo insérer nit ki. Mhm. ñun jàpp nañ ne entrepreneuriat beneen bunt la. ci biir insertion boobu. dëgg la mooy bu fekkee ne gisuloo entreprise bu la gis. Mhm. bu la jël. Mhm. gisuloo structure boo xam ne moom moo lay jël ngay liggéey mu lay fay par weer mais pourquoi pas nga. créer sa entreprise parce que ñun dañ ko dund. tey bëri na ci ñun ñoo xam ne. ils ont créé leur entreprise avec vingt mille francs. effectivement on en fii d'ailleurs. tey ñu dem ba nekk. entreprise am entreprise yoo xam ne ay milliards lay générer di jël ay junniy junniy nit donc ñu woo leen ne leen lii tamit buntu la mhm. bu ngeen amul insertion ci côté bale mhm. ñëw leen nekk ay entrepreneur mhm. donc l' entrepreneuriat nekk benn source boo xam ne nit ki mën na cee jaar pour am métier boppam mais boo génnee ci entrepreneuriat boobu sous-thème la beneen sous-thème bi mooy xale ñu ngi ñuy dem sax ci sous bi euh, ñi ngi wax waxu entrepreneuriat tey est-ce que yoo xamante ne ñi ngi jàppale parce que ku ne entreprendre ne financement il faut nga am peut-être benn fonds boo xamante ne moom ngay déparé est-ce que yéen waa euh, RENES lëkkoo ngeen peut-être ak yenn structure yoo xamante ne fii comme euh, je sais pas DER FONGIP yoo xamante ne dinañ leen accompagner pour aider ces jeunes la waaw mais xam nga yooyu yëpp mhm. nit ñi dafa am loo xam ne dañ ko cee xamul mhm. tey gis nga structure de financement yooyu mhm, boo ñëwee di leen laaj xaalis xam nga lu ñu lay wax uh-huh. an mooy sa garantie koo xam ne amul kayitu kër amul ñeenti junn yu nekk ak moom. Mm. boo ko laajee garanti mooy doo ko financé. dëgg la léegi nag ñun ci loolu. Mm-hmm. la ñuy créer li ñuy wooye une caution solidaire. maanaam ñun suñu biir. ñun ñooy former caution. pour kenn ku nekk. bu ko defee ku soxla financement ñun ñoo lay porter. ñun ñooy dem ci structure yooyu ne leen mbooloo lañu. kii bu leen mënee rëcc. ñun mënuñoo rëcc. dëgg donc bu fay jotee. Mhm. moom bu leen fay ñun dinañ def ay pexe. parce que problème mu confiance moo am léegi. dëgg la les structures de financement amatuñu confiance ci nit ñi effectivement parce que mais loolu c'est ça bëri na ay ñoo xam ne da nga leen di jox financement. ñu ñu disparaître ñu réer yi. doo doo xam fu ñu ne. Mhm. Mhm. wala ñu dem def ci nag leneen. wala ñu def li ñuy woowee détournement d'objectif. dëgg la léegi ñun ñi nga xam ne xamante nañ suñu biir. xam ñi nga xam ni. ñu wóor la ñu. ñu jub la ñu tey boo leen joxee financement. Mm-hmm. dinañ mën a dinañ ko mën a jaarale ci yoon sa xaalis dina mën a dellu si. donc loolu moo tax ñun li ñuy def am solo. parce que mm-hmm. structure de financement yëpp ñi ngay dégg. Mm-hmm. koo ñëw laaj ko ne ko joxal diw mu liggéey. dina leen ban garantie la am. wala mu ne la ban expérience la am loolu nag ñun suñu mbooloo moom mooy mëgg loolu moom mooy remplacer loolu nga xam ne tey ku ko amul doo mën a accéder à ces structures de financement donc ci biir loolu ci suñu sous-thème yi ci la ñu indiwaale aussi le retour le mooy nit ñi nit ki ca kaw la am na loo xam ne tant que demul gis ko wallaay mënoo ko koo gëm dëgg mirage bi nekk à l'extérieur ah xale bi di ko gis moroomam dem di snap di ko wan mu jàpp ne kat àdduna fii la neexee tant que demul dund ko du ko xam nit ki dina dem nag jànkonteeg foofu ay jafe-jafe du mën a dellu si du xam nu muy def parce que ngorom ak jomam mayu ko ko léegi nag il faut opportunité bi ñu may ko ko am na ay structures yu fi ne yoo xam ne pour loolu la pour dimbali ñi nga xam ne dañoo bëgg a dellu si investir mhm. léegi loolu aussi Mm-hmm. dañ ci woo ñi nga xam ne ñoom ñoo ndaw ñi nga xam ne jaaxle nañu mm-hmm. mais bu ñu leen ci woo tamit nañu fekk ay structure d'accueil bu ñu ñëwee ñu ne leen lii ak lii ak lii jàpp nañ ne bu ngeen ci duggee mm-hmm. as tuut si ngeen jëlewaale fële bu ngeen ko fa dugalee dina mën a gën a kenn mu war a ñëw di ñu seetaan war a tey nen ne jaw maa ngi lay kuku chaque jour mu naan bëgg naa ñëw mais xaw ma laa fi mun a def si tey boo ko doon conseil yéen waa euh, RNES lan ngeen mun leen mun a wax comme ku ñibbisiwaat lan nga ci lan nga mun a téye mooy li ñuy def rek entrepreneuriat xam nga yaatu na du rek par exemple ñiy def batiment mm-hmm. am na secteur boo xam ne kii prestataire de service la mm-hmm. xam-xamam ak mm-hmm. koo xam ne prestation intellectuelle xam-xamam lay jaay tey ki nga xam ne agriculture lay def c'est un entrepreneur agricole ki nga xam ne élevage lay def c'est un preneur ki nga xam ne day defar ay produits yu mel nii ah, di ko defar xam ne kii tey dem naa gis tubaab yi produits yi baax na ci seen yaram boo leen ko wanee dinañ ko dinañ leen intéressé kooku entrepreneur la. a fii karité ak lu ne nit ki di ko defar ay oh. chantier te baax parce que yàlla xam nga Sénégal pétrole rek la ñuy gis. mais am nañu lu jiitu pétrole. mooy nos produits bio. dëgg la naturel bi nga xam ne oh. adduna bi yëpp ci la ñuy dellu. loolu war nañ ko mën a valoriser. Mm-hmm. Mm-hmm. pourquoi duñ ci woo nit ñi ka dem bitim réew expérience ba mu fa am. Mm-hmm. jaxasoog tubaab bi. xam lan mooy seen i jafe-jafe. xam lan mooy seen bëgg-bëgg mais bu dellu see buñ ko tegee ci yoon. war naa mën a dem ci àll ba. gor fa ay ay ay ay niimam Mm-hmm. def ko huile. wala mu dem jël buy. Mm-hmm. def ko huile ñëw commercialiser ko waat di ko jaayaat mu dellu. Mm-hmm. effectivement ñun ñun mën a dem ci société vraiment d'exportation. parce que ñun dañuy jënd rek. wallaay ndeysaan. ñun dañuy importer rek. effectivement alors que produire ñu. vraiment jaayuñu. wallaay dëgg la léegi loolu. secteur boobu bu fekkee ne valoriser nañ ko yaatal ko comme ni mu waree képp ku dellu si Sénégal di nga xam ne kat réew mi nag nekk li fi ne mhm. nekkul fenn ci àdduna bi dëgg la gis naa ni aussi que da ngeen ko pare ne kenn koo xamante ne moom moo di monsieur Diop Sy pourquoi ce choix sur euh, monsieur Diop Sy di maire euh, Tivaouane bu ma juumulee moom itam ñu ngi koy waaw mooy suma mooy suma maire <laughs> mooy mooy mooy sunu maire ñun waa Tivaouane ndeysaan vraiment mu nekk koo xam ne yàlla da ko may mu am xarañte mhm. ci wàllum entrepreneuriat parce que dañu yàgg waxtaan ak moom moom aussi ci ci zéro la départ. dëgg la lu ne mu dugg na ci. Mm. Diop def na nekk na boucher. Mm-hmm. Diop si def na élevage Diop si def na lu ne mm-hmm. Diop si nekk na ci mbalit mi mm-hmm. Diop si dem nekk na ci restaurant université ba tey jii mu taxawal entreprise boo xam ne ay junni junni nit ñoom lay jël donc ñun exemple yooyu ñun ñooñu la ñuy wër ñi nga xam ne suñu ay mag lañu ci secteur bi uh-huh. nekk ci yooyu xam ci lu baree bare ñuy ànd ak ñoom nag ñu ñuy tette ba pare di woo tamit yeneen xale yi. Mhm. ne leen lii mooy yoon bi. il faudrait que nit ki am ay références. te Sénégal nag dañoo war a dellu si ci loolu. kenn ku ne secteur ba mu ne. Mhm. ñi nga xam ne ay références lañ ko. Mhm. y en mais comme ñun moom la ñu gën a miin. moom la ñu gis suñu kanam. te tout aussi bu ñu amee jaaxle ci li ñu war def. moom day ñëw présent day bàyyi li doon def ñëw parce que dana samay rakk ngeen. Mhm. dama leen a boot ba ñun fi ñu egsi. tey yéen ñëpp ngeen egsi fa. wala jeunesse bi de référence aussi am na fi mooy ñooñu nga xamante ku mel ne ay Diop alors bés boobu c'est vrai panel bi di ci waxtaan ci mun a xaar kan nga ci invité ak sa dernier mot téléspectateur. Euh, invité nañ ci daanaka lépp loo xam ne banque la. ndeysaan. invité nañ ci structure yi nga xam yëpp dañuy yëngu ci wàllu euh, formation. Mhm. mel ni waa 3FPT ak ñeneen ak ñeneen waa mhm. ANEJ ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum financement. Mhm. invité nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu marché yi. muy waa ARCOP ñu leen daan wooy ARMP. invité nañ ci daanaka ministère yëpp. maanaam. yëpp structure boo xam ne structure buy jël décision nga mhm. wala nga xam ne am nga rapport ak entrepreneuriat wala nga xam ne am nga rapport ak li nga xam ne mooy phénomène bi am ci jamono ah, tey muy mhm. mbëkk mi ministère de la jeunesse woo nañ ci loolu pour que ñu waxtaan dafa am benn mag mu baax mu ne woon mhm. on a toujours parlé de la jeunesse. il suffit maintenant de parler avec la jeunesse. effectivement ñu woo ci ay xale yu jigéen partout. ñi nga <laughs> xam ne ay zone de départ lañu. Mhm. fi mbëkk mi daan am. Mhm. pour que ñoom tamit ñu ñëw. Mhm. il faut ñu commencer waxtaan. te ñi ñuy waxtaan la xale yi la parce que ñoom la concerne. ndax affaire bi dafa départoon nekk un épiphénomène ñu ne non lii dafay jaar. mu transformé wu en phénomène. nekk loo xam ne nag jaaxal na ñëpp. kon dafa devenir dafa mm-hmm. nekk un fléau. Mm-hmm. fléau nag bu amee. Mm-hmm. Euh, dafay laaj. force yëpp taxaw kenn ku ci ne li mu am ci xarañte ci xam-xam ci mm-hmm. mën-mën mm-hmm. ñu jàppale état parce que état noonu lañ koy jàppale parce que c'est un problème culturel mm-hmm. xam naa dinañ am occasion bu ñu demee wax ci cause yi parce que loolu tamit xalaat nañ ci effectivement li ñu si indi ay solution mooy suutam yi nga xam ne développé nañ maintenant nag li nga xam ni moom lañ ci yaakaar dinañ ci waxtaan aussi mooy fexe ba ndaw ñi jël conscience que ni Sénégal li ñuy dem di ko jéggaani feneen. am na fi am allah donc Sénégal wax dëgg fa yàlla c'est un pays boo xamante ne ñëpp war nañ fi mun a réussir sunu Sénégal la nañoo àndandoo xàccandoo dërandoo béyandoo ah, parce que loolu rek moom mooy sunu wareef ci li nga xamante ne moom moo di sunu réew un Sénégal émergent c'est bien possible mun na nekk comme ni mu koy waxee du yem dong ci kàddu waaye jëf la waaye loo gis rek dañuy naan penco penco boo amee nag incha allah dinañ gis li nga xamante ne ëllëg moom moo di ay solution noppalu ko tuuti balaa mu ñëw tàggoowaat mbaaye mm. ñu defal leen benn son mm. ñu enjoy soufflé ah. ñu jéem a dundaat tuuti pain bi comme ni mu ko waxee sànq ton day am lu mu àndal monsieur Guèye dama ko bëgg nañ dem xool benn vidéo ko tegalee daal di dër ci saa maa wax ni ki koy simba man laa bëgg xam ah <laughs> dangay dangay bàyyi ba yegg <laughs> incha allah <laughs> ok ñu dem xool benn vidéo tout suite ñëwaat saa yu génnee gën mu woy nag woy boo xamante ne dafa am solo doom goreel ah donc nag gore dafa am solo ci doomu aadama rawatina nag bu fekkee dafa nekk ci sunu njaboot n'est-ce pas mbaaya Momo Dieng mbaa xam nga ne papaam ak sam ñoo doon ànd ak sam papa Mor Samb ndeysaan macha allah yaayam doon ku baax dëgg doon ku baax mm-hmm. euh, liñ naan nii laa mel jarta dem jàkka jarta toog di waat boo dee def ta bàyyi noo mën a ñu xam. dëgg la xam nga ne kii ñu jàkkaarloo mu Guèye. dafa am ay nit ñoo xam ne dañu galant. wallaahi. daf ci bokk. Ah, macha allah ndax léegi macha allah. bi mu waxtaanee ñun dañoo kontaan. wallaay dëgg la. donc moom it nañ ko ñaanal mu yeggaleek sagoom. amiin yaa rabbi ak yëpp nag. dëgg la mais damay wax ne. Momo Dieng. Mhm. dama dem kër yaayam. di yóbbu teraanga Assou drame sama cousine. Hmm. ñu maye ko. ci euh, euh, magu moo Dieng takk ko amee Dieng. dëgg la moo moog naa hmm. seen goro gërëm leen. Hmm. sama yaay ajaratu Awa Diaw baaxkat boobu. il faut ñuy wax baax baax yi ñàkk. parce que nit ñi dañoo stressé. yi bari ci réew mi. mais baax baax yi ñuy wax nit ñi di ko koos. day am solo. dëgg la Momo teral ndeyam. mbaa xam nga ne doom day tontul ndeyam. dëgg la. mais ay façon tonton Mado. waaw monsieur Guèye ay xuloo xeex kii day defanteeg sama yaay damay defanteeg moom. non non bëgguma xaaruñu ko loolu. kii day waxanteeg sama yaay damay waxanteeg moom. dëgg la non mhm. kii day jëflanteeg sama yaay damay jëflanteeg moom. Mhm. bëgguma boobu doom. dëgg la xam nga ban doom laa bëgg. Mhm. ndax am nga xam nga ne ëmb juróom-ñeenti weer boot ñetti at. boole nax ak nàmpal bàddali. doom ji màgg di la jooyloo Mado. Hmm, yàlla nañ ci yàlla xel mu tey rek doo mënu koo fay ndayam. wallaahi. yoonu hôpital def visit doo mënu koo fay ndayam. jur jot sa bakkanu yaay xaj ci. nga màgg di jooyloo sa yaay di tongtongal sa yaay am na ci xale yoo xam ne dañuy tong seen ndey am na ci xale yoo xam ne dañuy xas seen ndey am na ci xale yoo xamante ne dañuy dóor seen ndey mm. am na ci xale yoo xamante ne dañuy yàq seen deru ndey mais ñu ñooy xale yu safaana yu mais am nañu noobul dëgg la ku ci mel ni Soda Kebe mais macha allah ku ci mel ni Ndeye Ndiaye macha allah ay xale yu teral seeni ndey mm-hmm, ku ci mel ni man mii gay joor ba si bànni tegg balla ku ci mel ni yow sa wax ne ma wallaay dëgg la xiiful maru. wallaay ndeysaan géej jooro dafa baax nee na. rëccuwul lu mu la doon jure dëgg la ndax dafa am macha allah doom yoo xam ne boo leen juree da ngay fier. <laughs> wallaay ndax dañ lay teral. dañ lay siggil dañ lay tatagal. Mhm. dañ lay yokk valeur. Mhm. mooy doom yiy tontu seen ndey. ci kër yi ci bu ñu ko mënee. Mhm. ci oto yi ci bu ñu ko mënee. ci yoonu màkka yi. ci bu ñu ko mënee ci yoonu Europe yi ci bu ñu ko mënee. ci lekk gu neex gu dal gu set gi. ci bu ñu ko mënee. ci yére yu rafet yi mbaa or bu dee góor nga jënd ko sa yére yu rafet muy baay mbaa dàll yu rafet loolu yëpp bu amul ndax nag euh, ñëpp bokk ñu yem dëgg la xale yi bëgg nañ ñu ci bari mais amuñu xale yi ak ñoo bari jom wallaahi yii ñuy def nii yëpp bu leen kenn wax loo xam ne da leen di naqari xam nga lu tax mhm. joma leen tax dem ak dimbali seeni waajur oh. léegi doom jooju tey bu màggee di jooyloo ndeyam wala jooyloo baayam mbaa xam nga ne xoolal doom ji ndayam gërëm mu jëm nga xool nday doom ji baayam gërëm mu jëm nga xool doom ji ndayam xarab xarab mu jëm mm-hmm. nga xool doom ji baayam xarab mm-hmm. mu jëm damaa bëgg doom ju ju ju ju bëgg nday dëgg la yoo xam ne buy wax ak yaayam da koy raay. wallaay di ko sigi di ca kaw buy oh. wax ak yaayam da koy jege. wallaahi boo xamante ne bu yaayam di wax ak moom. day wàcce boppam. mbaa xam nga ne tey di nga ànd ak sa baay wan ko ne ko nii laa toll. Mhm. ana ana lay sa xuwa. dëgg la yi di wax. mën te loo am teranga teraanga teraanga te sa baay di dund jàppal ne nekk goo kilifa moom mi sa baay di dund. moom mooy kilifa ba tey am na ci xale yoo xamante ne pour ñoom. ñoom mhm. ñooy kilifa seen baay du seen kilifa. ëpp naa def. am na ci xale yoo xamante ne pour ñoom ñooy kilifa seen yaay du seen kilifa. mais kilifa boo mën a wut ci àdduna. te respecté woo sa ndey ak sa baay. Mhm. wàcc nga ko Momo Dieng jaajëf. wallaay Momo Dieng jaajëf monsieur Guèye doom day tontu ndeyam. mel na mhm. ni tey waa RNES moom moo leen tax a jóg ndax solution ngeen di wut pour xale yooyu lan nga ciy wax. waaw loolu moom. dafa nekk loo xam ne dañoo war di ci dellu si lu bëree bëri. Mhm. parce que li mu wax dafa am solo. Euh, ki nga xam ne moom moo jur doomam. Mhm. Euh, li nga xam ne kenn mënu ko fay sa way jur. dañuy nettali dafa am koo xam ne euh, dafa defal yaayam lu ne. Mhm. ba mujj gi mu xam ne yaay ji dafa bëgg ay tool. mu daanaka dagg lu tolloog cent hectares. loo xalaat rek def na ko ci. juum nag. ñëw indi yaay ji ba foofu. ba yaay ji kontaan mu ne ko yaay kontaan nga mu ne ko waaw mu ne ko xanaa kon wàccoo naa ak yow. salaamun yaay ji jooy. waaw uh-huh. ne ko damaa bëgg nga bënn sa ween wi. jox ma ma jox ma ko may naam. Uh-huh. mooy doom mënul fay yaay wallaahi uh-huh. macha li ci yàlla digle. yonent bi wax ko. loolu kenn mënu koo dindi. te yàlla du naxe ah. yàlla <laughs> buy wax sax def ne sa yaay. ñaari yoon ña ñetti yoon doog a wax sa baay yàlla du naxe gis nga ku toppatoo sa yaay téye ko teral ko ah. mhm. mooy li nga wax mhm. macha allah jarul ngay wuti ñaan parce que da ñaanal sa bopp ba pare te loolu nag mhm. dafa nekk système boo xam ne entrepreneur yi dañ cee saf parce que entrepreneur bu ci njëkk am tuuti rek yow yaa ngi xalaat yow nan ngay terale sa waajur te loolu aussi même xale yu mbër yi ndeysaan man loolu moo ma gën a moo ma gën a neex wax ne sama yaay man ñiy bëree ñu ak loolu loolu moo ma gën a neex ci seen discours damaa bëgg a teral sama ñàkk il faut ñu invité waat la. waaw pour sax ci Renesse mais ci ay yoo xamante ne. ci mën a participer parce que vous êtes vraiment d'une pertinence. macha allah xanaa ñu may la nga tàggatoo parce que malheureusement. Euh, émission bi jeex na ba noppi. loolu sunu <laughs> journée suba bi. Uh-huh. Uh-huh. ñor nañu ñor goo xam ne. ñu ngi insister. Uh-huh. ci structure étatique yi. ministères yi na nit ñi ñëw. effectivement mënuñoo am lu gën a. am solo lii ñuy waxtaane mhm. parce que ñëpp ngi ciy teg seen bët mhm. Mhm. mais kenn xamul fan lan mën a jaar ba régler ko donc bu ñu waree daje pour waxtaane ko kenn ku ne indi xalaatam kenn ku ne indi contribution am ñu mën a fexe ba ndaw yi toog ci dëkk bi je pense que loolu dara ëpp ko solo parce que nag xale yi ñu ngi jël ay risques grand théâtre lay doon grand théâtre lay doon ñu ngi commencé dix heures comme panel la journée bi yëpp fa la ñuy ne dinañu def pause café bu une jotee mhm. ginnaaw bi nga xamee ne introduire nañ thème bi ba pare mhm. bu ñu paree def ay questionnaire xale yi nga xam ne ñoom ñëpp fa ñëw mhm. ku ci ñu laaj la mbir mi noo ko gisee lan moo ko waral lan la ñuy fexe ba mu ba mu ba mu ba éradiquer ko bu ñu paree reprendre waxtaan wi récupérer questionnaire yi ñi nga xam ne ñoom ñooy modérateurs yi téyewaat ko càmbar li nga xam ne xale yi moom lañ wax ñu def nag benn mémorandum bu ñu paree nag ñu invité xale yi ñu ñu xéewlu xam naa beneen yoon moom mbir mi Mbaye moo ko ñëw defal ñu ay ñalang ak yu mel noonu. waaw waaw loolu mënta ñàkk macha allah donc yéen ñi nga xamante ne jotoon ngeen dem et ça n'a pas réussi dem leen ngeen fekkee boobu itam waxtaan boobu parce que ça pourra vous servir. Mbaye lan ngay tàggoo mbokk téléspectateurs yi. waaw bu boobaa dinaa leen defal ñalañ bu doy waar. ndeysaan ndax nag moom sama mbokk Tiwaawan la. wallaay dëgg la euh, sawar naa pour pour pour liggéey. ak moom wallaay wallaay macha allah. merci euh, may nuyu soxna May. vaisselle mhm, mhm. moo ma jox ngi leen di nuyu nag dëgg la mënut a ñàkk gunge ah waaw moo tax sunu table rafet soxna may Bessel mm-hmm. mi ngi marché HLM mm-hmm. numéro am 77 795 09 89 Ngone Thioune mi nga xamante ne moom moo joxe crevette yi ak euh, ton bi mm-hmm. macha allah jën yu ma indi TFM rek moom moo ma ko jox ñi ngi koy xaar mu Thioune ndawal li léegi moom moo ma jox jën yi tey euh, numéro am 77 euh, 635 quatre vingt cinquante 55. Mhm. dinañ ko invité fii ci kàttanu yàlla mu ñëw jàkkaarloog ñoom mhm. maa ngi lay béggee euh, bu baax a baax. Euh, Mado sànq euh, sama sama sama mbokku Tiwaawan bi. dafa wax lu am solo. dëgg la xale yi nañuy nañuy ñaanal seen waajur yi. dëgg parce que bu du woon ak waajur yi. Mhm. ñoom du ñu du ñu ñëw tey ba mën fi dara. dëgg nag damay gis toujours lu mu wax ne sama yaay. yàlla xam na ne démb dama ko seetaan mu ne. Euh, ñu ne ko dóor yi metti na mu ne man bu may encaissé damay kontaan ndax lépp rek sama yaay mooy tax muy gën a am jom oh. kon yal na leen yàlla defal jàmm ñoom bëri yëpp may kontaan ci ñoom bu baax a baax di ko jaajëfal bu baax moom mi nga xamante ne moom moo di Siteu di ko mhm. encouragé waaye il n'a pas démérité ndax mbër dëgg la moom itam mhm. yal na ko yàlla may kattan ak lu mu tëralee li nga xamante moom moo di ndeyam félicitations à Lac de Guiers moom itam vraiment ah, macha allah yal ko ndam bi jik comme ni ñu mhm. koy waxee moom itam yàgg na ci waar wi waaye macha allah gis nañu il est en état ba euh, ki nga xamante ne moom moo di les enfants de Eumeu Seye ak Awa Dioum ñooñu samaay magu bopp nañu euh, de la part de Baxaw ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax mm-hmm. maam Anta sunu magu bopp dëkk ca Ndar moom itam ci cité police moom itam ñu ngi koy seetaan di ko jaajëfal ak di ko gërëm bu baax a baax naa na waxtaan wi euh, daw na yaram te sedd na xolam kon nag mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di dox euh, dajee incha allah demain ci beneen seetu bi ak yeneen invité nii lay demee saa su ne monsieur Guèye c'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau dem demain fi nga xamante ne moom moo di grand théâtre pour ñu waxtaanee panel bi parce que mhm. ñoom xale yi rek ñoom ñoo leen soxal cette jeunesse là ñoom nga xamante ne ñoom ñoo nar a bâtir ëllëgu suba n'est-ce euh, allah ñu ci euh, remercier encore une fois comme ni ma ko waxee mooy sunu parrain bi muy euh, Demba Diop mhm. vraiment taxawuñu gunge ñu tette ñu moom aussi ñu ngi koy yàlla yàlla yàlla dëgëral taxawaayam li mu mébét ci Sénégal yëpp yàlla defal na ko ko parce que nit ku am yitte la di ñu xelal di ñu wan yoon ak expérience bi nga xam ne moom moom la moom la ko yàlla jox macha allah ci profité rek sànni lu ndaw mooy euh, aussi gën a waxtaan ak jeunesse bi nga xam ne dañu toog mhm. dafa am phénomène bu xew léegi mhm. xale yi ñu ci baree léegi dañuy dem ci affaire carte dëgg la parce que léegi koo wax mu ne léegi li xew mhm. mooy toog muy ñëw dégg lii loolu kenn xamul war nañ ko éradiquer de sama téléphone